ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi leen fay bu baax a baax. di la baalu àq ci weeru koor bi. baal naa leen yéen tamit baal leen ma. nan nga gisee initiative bi. bon nekk na initiative boo xamante ne nekk na loo xamante ne c'est vraiment moom et que sama frère Dacosta lu mu sumb rek man dama ci sóobu. ndax bëgg dara nekk bu baax bu ëmb nit social aussi te tamit ku ma xam ku nekk xam ne ci wàllu social laay dox ma gisee tey ji mu yëngu ci des un frère pour dama ciy sóobu dama ciy dem ba jeex voilà. ñu dajalee ñu yi ak musulman yi ko séddale. waaw loolu dafay wane ni jullit ji ak ak ak ak yëpp benn la. ñun ñëpp benn la ñu et tout voilà ñun ñëpp ñu dajaloo fii nii pour euh, war a mën a joxe ndogu bi loolu yaakaar naa ne lu rafet la te initiative bi macha allah. lan moo tax ñu taamu ci le 4 avril. bis ah, parce que dafa nekk boo xamante ne c'est vraiment spécial suñu indépendance macha allah di ko mu nopp loo xamante ne yaakaar naa ne euh, dañ ci war a profité bu baax a baax tax ñu wane aussi tamit suñu mbégte ak kontaante. on a trouvé que euh, l'initiative était, était vraiment euh, noble en fait et je suis juste là pour apporter mon soutien et enfin à tout le monde quoi en fait. mais Euh, que pouvez-vous dire aujourd'hui par rapport à la première édition bah, que la deuxième édition est toujours meilleure. On est toujours ravis de voir qu'il y, qu y, qu y a de plus en plus de personnes qui contribuent. Euh... <laughs> Et les prochaines fois seront encore meilleures de toute façon euh, parce que parce que les gens ben, donnent de bon cœur et c'est tout ce qu'on voit en fait là. C'est vraiment la générosité des gens et, on, on, on, ne peut, on que les remercier, tous les partenaires, toutes les personnes qui nous accompagnent, tous ceux a pas vraiment de a pas petites sommes. Euh, tout ce qui a été donné euh, est, bon à prendre, on va Quel est le message que vous pouvez véhiculer aujourd'hui pour la jeunesse, pour la population et pour la mais c'est surtout la solidarité dans ce temps-là c'est surtout la solidarité c'est le partage euh, enfin le bien n'est jamais perdu comme on dit et euh, de toutes les manières comme on dit c'est Dieu aussi qui va qui va nous le rendre quoi. Donc on fait juste tout ce qui est, tout ce qu'il y a faire tant que c'est de bon cœur on le prend avec plaisir. chrétiens musulmans booloo joxeendoo ndogu ndogoondoo en même temps muy loo xam ne en continuer ci français mais euh, c'est parce que on est dans un pays euh, Sénégal comme musulman. dañu nekk ci benn temps yi ramadan donc c'est euh, euh, instant de partage mm. c'est juste pour pouvoir réunir tout le monde. monde et puis partager euh, ce qu'il y a, ce, ce qu'on a, ce qu'on a de plus cher. Quoi. On a le même Dieu, c'est juste les religions qui sont différentes. Donc voilà. Qui a initié cela Bon, à, à l'origine, c'est euh, Monsieur Paul Dacosta. Et après, maintenant, euh, tout le monde, en fait, un peu tout le monde maintenant s'est rallié à sa cause. Et puis, c'est une cause noble. Donc, euh, voilà, on est tous là aujourd'hui en train de, en train, partager les repas, comme on, le fait à, à heure-ci, que ce soit pour les chrétiens ou pour les musulmans. Mhm. Qu'en est-il de vos projets pour le moment Même Pour les projets en ce moment, on va dire que je suis un peu en tournage, mais euh, j'ai un peu mis de stand Mais euh, il y a d'autres choses à venir, Inch'Allah. En <laughs> a pas de série <laughs> D'accord, merci beaucoup, Dalana. Merci à vous. Bonne Alors, Qui prend que Nini. Moi, prend que Eva. mais ci loo ne ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. naka nga dundee initiative bi. voilà initiative bu rafet rek. bu euh, monsieur Paul Dakosa mi nekk sama wet def xalaat ko. boo si woon ñu si ñun ñëpp. ñu ñëw ku nekk indi si sa contribution sa xam-xam sa wàll mu nekk lu rafet si diggante catholique ak jullit. ñu rafetlu ko trop si weeru koor bi. macha allah muy loo xam ne nag euh, dafa gën rafet comme ni nga ko waxee euh, ñëpp daal di ko apprécier mais dañoo gis beneen euh, beneen affaire wala beneen loo xam ne jaaxal nañu muy seen complicité entre vous entre vous les influenceurs entre vous acteurs entre vous ñi nga xam ne nag ñoo initié li ni mel lan bon man moom déjà man duma influenceur duma acteur man maa ngi si ginnaaw gars yi rek donc euh, loolu mooy wone ne Sénégal lépp benn la benn bopp la ñëpp ñoo bokk et que ay ay yu ñuy sol la bu ñu paree dañ koy summi xol yi benn la tey koo woo si liggéey dafay summi mbubu acteur am mbubu comédien am mbubu DG wam ak lépp pour ñëw liggéey loolu mooy wane ne Sénégal ku nekk yaa ngi sa rukk bu booloo amee nga xam ne xol yëpp benn la vraiment merci beaucoup madame Latifa merci c'est gentil c'est gentil. Aïcha dañuy enchaîner ak l'organisateur ou bien maa ngi leen di fay. Euh, ci loo nekk. ñu ngi si jàmm bu baax di leen gërëm yéen aussi waa Seneweb euh, la plateforme leader. Uh-huh. merci beaucoup euh, ci biir loolu mën nañu xam exactement li nga initié lan moo ko mbëbët ba nga initié ko. macha allah Latifa wax na yëpp ñun plateau bu ñu taxaw Latifa bu waxee rek presque man aw ma lu may wax ñun on a juste essayé. d'inviter les Sénégalais à se donner la main pour être solidaire pour que concept partage entre chrétiens ak musulmans ñu gën ko mën a dëgëral man mi je suis chrétien am naa ay parents musulmans moom elle est elle est musulmane am na ay parents chrétiens mais tey ñu ngi choisir 4 avril parce que c'est un jour férié c'est le jour de notre fête de l'indépendance temps yi yëpp ñu ngi nekk ci ay xat-xat yi politique un prêtre et un imam pour que ensemble ñu ñaanal Sénégal ba nga xamante ne ñun initiative bi ñu am mooy boole ay doomu aadama yu baax pour ñu organiser lu mel nii te organisation bi nit may ñu un million wala cinq cent mille wala deux millions non Latifa moom mii ngeen di gis nii 500 kilos mburu la ñu may ndox bu dul jeex ak canette am keneen koo xam ni moom cinq mille francs da ko fonk yëkkati ko dugal ko si 5000 francs keneen ñëw maye keesu canette Seneweb seen bopp ngeen maye 50 pack d'eau serviette hygiénique ak leneen ak leneen kon ñu ngi remercier seen directeur général di wax ni Sénégal mbooloo mooy doole Abdou Salam Fall mhm. à travers ñun suñuy voix ñu ngi remercier Seneweb di remercier équipe ñoom Fatkine ak yéen ñii ñëpp lii nag ah du dara mbooloo mooy doole dañoo joxante loxo ku nekk cotiser ñu organiser ko mu am solo loolu kese la. mais ci biir loolu gis nañu tamit comme li ma ko wax léegi madame Latifa seen euh, maanaam diggante relation bi ngeen am dafa dafa jéggi dayoo ba ñu bëri euh, di jaaxle di laaj. fan ngeen miinantee ak seen xamante lan moo ko waral tey moom sama sœur la foo Green mooy numéro un moom boo leen xoolee ñoom Eva ñoom Marichou tey yàlla bu ñu dimbalee ba ñoom képp ku ñu woo si ñoom mu bàyyi yitteem rek ñëw c'est parce que am na lu rafet lu ñu seeg seen diggante ñoom ñoom ñii yëgati leen yomb yàlla xam na loolu mu defal la benn vidéo yéen mii waa Sénégal wax leen si kenn mu defal leen vidéo mm-hmm. mën na bañ a yombee noonu mm-hmm. mais Roussel respect bi am sama diggante ñoom parce que à travers Faux Green Tours ànd ak ànd nañoo ñoom si voyage yu ne prendre leen en charge bégal leen bégal seeni i jëkkër seen doom ba ay doom juddu si kon ñooñu bu ñu xëyee gannaaw suba soxla leen ñoom seen lépp la ñuy bàyyi ñëw di surveeg ñun ndogu bi partager lépp ci biir mais influenceurs yeeg ni ngeen leen di woowee célébrité et ay nit yu baax lañ boo gisee nangu nanguwuñu dugalante ñëpp des fois parce que saay-saay dañoo bëri problème yi bëri mais ay nit yu baax la donc c'est-à-dire que li ngay expliqué mooy regrouper leen yomboon na trop. mettul woon ci yéen ñun voilà. d'accord mettul parce que li ñu sekk ak ñoom. si teraanga. ak si li ñu sekk lépp si lu baax. moo tax euh, ñoom ñëpp a buuxante mu xat mais ñoom ñëpp a débrouillé ñëw. c'est important je ñoom ñëpp am ay doom yu ndaw ay leneen. mooy li ma la wax. ñi fi toll si ñoom ñi si ñëw kenn xamul nu mu toll. vidéo yi dafa bari macha allah. da leen di remercier mais di wane ne aussi jàppante rek moo am solo ñun ñii. jàpp nañ seen bu baax di leen ñaanal. jàpp ngeen fu baax parce que yéen liggéey ak yéen aussi. jàpp ngeen fu baax Latifa nag. Mhm. bu yeboo sax mu ko si moom. waaw fii moom nit ku baax la. da ngeen ko war a ñaanal. African woman leadership. Mhm. mu nekk jigéen. Mhm. nekk jugee États-Unis ñëwaat Sénégal bëgg réewam. monter entreprise seen i wut. ñëw am initiative pour décorer ay femmes. ak ay personnalités fii Sénégal. ba tax mu def ay mbir jaloore yu am solo ba ñëpp ràññee ko si mais sénégalais comme dañu mën a toppandoo yaa ngi gis foo tourné ay Oscar xawma lan ak lan lépp ci biir mais lu baax la ñuy roy waaw moo la ñuy mais ndox du bàyyi yoonam moom boo leen ko toppee wala ñu ko war a jàppale wala ñu ko war a dégg moom am na yeneen idée yoo xam ne day def développement personnel mhm. bëri na xam-xam il faut c'est important président de la république bu dee lii message bi mën na jàll ba foofu mhm. yàlla na ko recevoir parce que bu ko recevoir recevoir na jeunesse si aussi ndax lu muy def dugg na si région yi dugg na si hôpitaux yi si foo xalaat pour jàppale ay doomu aadama si lu baax kon ñu mel nii ñoom ñooy ay leader ñoom lañu war a jàppale moom lu baax lu mu wax si man man su ma waxee si moom sax xanaa sama xol day tooy parce que dafa baax merci beaucoup je t'accorde ça merci de tentative. Afin qu'à travers le seul nous puissions bien descendre. Ô toi, Dieu de feu, qui règne pour ku taxaw fii ñu ko ku taxaw fii. ba mu des say journaliste ku taxaw fii la jox ñun ñëpp dem ci ginnaaw branche bi. bu fees bisimilah mu déggee presse bi toogee toogal ma toogal kuy presse toogal les fees voilà. ñun ñëpp dem ci ginnaaw branche bi waaw dem na ci ginnaaw branche bi ku dem ci ginnaaw branche bi la jox dem na ci ginnaaw branche bi waaw ku dem ci ginnaaw branche bi la jox. xoolal daal. xoolee ba ñu am si. gaa ñoo leen bëgg gaa ñoo leen bëgg gaa ñoo leen bëgg suuf la damay naan rek gaa. allez là ñëpp a ñëw allez là rek. gaa. gaa allez rek allez rek woon allez rek suuf la allez rek tuuti rek allez rek tuuti moo leen. léegi fi ngeen di fàtt lii rek lii wax jàpp la si ginnaaw baas bi bu leen jox kenn bu leen jox kenn bu leen jox kenn. ngeen di sa si taw bi bu leen jox kenn côté bu journaliste yi taxaw rencontre bu leen jox kenn côté bi la ñuy joxee. voilà na ñëpp dem ci ginnaaw bâche bi na ñëpp dem ci ginnaaw bâche bi ñu jox leen seen ndogu. waaw loolu